délégation bu mag moo bàyyeekoo woon Touba ëmb nag union de karimistes du département de Mbacké ngir dem nag maison du parti démocratique sénégalais ci institut libéral njublu si ñu formé leen si wàllu processus électoral ak yeneen thèmes yu fasantikoo Xaadim Taal moo ko dirigé woon bi ñu agsee fii nag ay boroom xam-xam si ay échanges yu am solo si seen diggante ak ñoom seqoon nañu waxtaan bu mel. n'est-ce pas commission ñoom ñoo la loolu nag am na ñoo xam ne ñi duñ koy dañ koy dañ koy dañ koy woyefal loolu mooy indi nga bindu ci liste yi rek tukki wala toog jàpp sa ñàmbur ba bisu vote ñëw ah ñuy joxe carte yi nga dem laaj gisoo carte fekk ca bind ba xëy na lañ la tëb wala nañ la dugale machine ba daf ko bañ donc soo defoon contrôle des listes def phase contentieuse kon amaana suñ koy joxe carte yi sa carte dina fa nekk donc après phase contentieuse mooy la distribution des cartes jamono bu nekk nag dafa am ñun nuñ si war a taxawe parti bi daf koy wax. naka noonu Khadim Tall am nag ay questionnement par rapport ak processus électoral bi fii si Touba ak ni muy doxee. Euh, boo xoolee bi ñu bi ñu génnee ci élection 2012 yi euh, bañ def législative. dañoo demandé woon euh, président Macky Sall booba ñu waxoon ne euh, centre yi Touba dafa xaw a dafa xaw a néew te li fay daje ci nit ñi dañoo bari léegi war nañ créer yeneen centre yoo xam ne dana tax vote bi gën a gaaw gën a yomb te gën a jege askan wi léegi nag ci moment bi ñu ko waxee woon defu ko mu dem boo nga xam ne arrangé na ko mu mu mu toj centre yooyu daal di génne huit centre léegi bi mu génnee huit centre nag comme euh, sensibilisation bi bi waroon a am ci jamono boobu amul euh, pour population tubaab yi xam ne am na ñoo xam ne jotoon nañ seen i carte ci élection législative 2012 euh, defal lañ leen ay duplicata yoo xam ne dañoo war a dem récupérer seen carte yu bees pour suñ demee jour vote ñu mën a voter loolu amul Euh, euh, docteur wax na ko ndax état bi liñ jubli foofu mooy na fexe ba population Touba bi duñ vote ni war a vote waxtaan bi également dugg nañu ci yeneen fànn ci parti bi ni mu sosoo ak tamit taxawaayam ci biir démocratie Sénégal Gaynde Faatma xam ngeen moo woo Ablaye ba mu ñëw mu ni ko góor gi mu ni ko mu ne ko waaw mu ko damaa bëgg nga dumaal ma Senghor mu mu ne ko dinaa ko def te boo xoolee congrès bi parti jëkk animé ca Kaolack Gaynde Fatma ko finance daa dugg ci topp tiinu parti